mbokk yi ci ndigalu alxalif mawlana cheikh ahmed tijaani ibrahim Niass alif saahibul fayda tijaaniya ci ndigalu mawlana baay cheikh ahmed tijaan Touré daahira maqaame ibrahim ñooy am mbégte ak kontaan di leen yëgal seen majlisu zikkar bu ñuy amal ak mu jot ren jàpp ko ajjuma avril 2019 terrain football liberté 6 terminus 9 programme bi nag ñii lay tëddee jàpp 18 heures danañ jiital wasifa bi teg ci xadara juma suñ paree ñu julli si kër sa tàmbali ba 23 heures ñu ànd ceeg Ayda Faye Khady Diaw Samba Zakir Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye Kabir Diop Ibulaay Ka ak Rahim Dia Baye Mande gannaaw si kër si waxtaan ba tàmbali ji ñu ànd ceeg Baye Cheikh Ahmed Tidiane Touré mbokk yi kaw xew baa ngoog majlisu zikar bu daahira maqaama Ibrahim ajuma avril ci terrain football Liberté 6 près neuf moom képp ku ko dégg rek mooy sa audio bu ko kenn